Bismillah.
Kiwaya. xewee mu ne faslun charaiti salaati charte julli charte yi nga xamante ne condition yi nga xamante ne mooy tax nga mën a taxawal julli julli koo pare julli gi wér mu ne arbaatun ñeenti charte la ñeenti condition la ñu ne ko yéen a ngeen mun a tahaaratul xabasi mooy laaba xabas laaba xa laaba xa laaba xabas nag si ñett lay doon laaba xabas si ñett lay doon mooy ani saw bi sa yére wal balay ni ak sa yaram wal makaan ak sa place place bi nga jullee yére bi nga sol lay laab sa yaram laab place bi nga jullee laab loolu mooy taxal ko xabas mooy laaba xabas mu ne ñett yooyu nag ibtidaa an si commencement lay doon wadoo aman ak si commencement julli gi ba kóob julli gi jeex ñetti place yëpp day laab waaw mu ne wa tahaaratul xadas si ak laabu toj waaw moom tamit ibtidaan wa dawaaman tahaaratul xadas nag mooy mooy toj la comme ni nga ko déggee mooy nga toj la benn nga saw wala nga dem wanag wala nga dem joor wala nga ngelawal yu demee noonu loolu mooy tahaaratul xadas wala nga génne mëj wala wëdd yi yooyu mooy tahaaratul xadas boobaa da nga koy raxas tam jàpp ci waaw fii kulli salaatin si bépp julli zaati rukuuin bi borom rukoo wa sujudin ak sujud wa gayriha ak yenn ci des ci bisi rukoo ci bisi sujud taxawaay mu ne wasatul awra ak muur awra ci chaque julli la bokk nga muuree ko nag bi kasi fin ci lu fat wax ñu na nga sol lu yaraax ba nga xamante ne muur nga sa awra mais ku ku la ku leen a jàkk gis sa lépp waaw da ngay muure loo xamante ne day xat ba pare ba pare nekk loo xamante ne du xat mu bañ a nekk lu xat day nekk lu lu xaw a yaatu day nekk loo xamante ne su fekkee jigéen da ngay mu nekk loo xam day melal ay cëram waaw moo tax mu ne bi kasiif si lu xat bi mu tallas si ñetti tomb mu bañ a wax kasiif nga wax kasiif léegi di mën na mu si kasiif bali mooy lu xat lu tal mu lay mu lay wax nag góor jigéen fan la seen awra tàmbalee ak fu seen awra yam ba nga xamante ne sooy sol séeréer di nga xam fi ngay muur waaw ak fi fi nga xamante ne moom nga muur fi fi nga xamante ne mooy awra gi su muurul su julli baaxul nga xam fi ngay muur ba nga xamante ne di nga xamee lii awra sew ak lu dul fi lu awra sew mu ne waa awratul rajuli awray góor min suwatihi li ngi bàyyi ko si jumbax bi ilaa rukbatihi ba ci bëti wóom waaw góor ñu tàmbalee si jumbax bi ba ci bëti wóom foofu loolu mooy awram si julli fenn si diggante boobu fenn fenn si feeñee rek julli mbaax waaw fenn suñu foofu rek si feeñee julli mbaax waaw wa awratul mar'ati awra jigéen nag alxurrati ba di gor maa ajnabi ànd ak jàmmur waaw dañ koo xamante ne ajnabi mooy koo xamante ne araam na la bokkoo leen dara mooy ajnabi moom awraam jamiu badaniha mooy mboolem yaramam illal wajha ndare xaru kanam ga wal kafayn ak ñaar tenk ya jigéen lépp ci moom awra la ci julli lépp la war a muur yaram bi yépp la war a muur ba mu rek xaru kanam bi ak ñaar tenk yi rek lañ ko may mu feeñal ko mais loolu tamit ci sàpp julli la bokk muur sa awra kon sooy julli sa awra am fenn fu feeñ sa julli baaxul wastiqbaalu qiblati ak jublu penk jublu penk si julli te ne nga jublu penk bul ko mooy bul ko dëdd waaw illaa fil qitaa yi nekk si jamonoy xeex illaa fil qitaa yi nekk si xeex xaalatal ittihaam yi jamonoy tampon bi suñuy xeex ba nga xamante ne ndax dañ ne wa idaa wa idaa kunta fii fa aqamta lahumu salaa yàlla dafa ni soo leen soo leen nekkee xeex ba julli jot da ngeen taxawal julli lu leen koy taxawalee nag mooy da ngeen def ñaari kuréel benn kuréel bi dem ànd ak imaam benn kuréel bi continué xeex dem ànd ak imaam imaam jiite leen benn rakka benn rakka waaw ndax dañuy wàññi imaam jiite leen benn rakka wala ñaar benn rakka leen jiite toog ñoom jur mottali seen benn rakka ndax dañoo bëgg mbooloo bi yëpp am mbooloo am am yoolu mbooloo moo tax moo tax imaam benn rakka leen jiite toog ñoom jur agri seen benn rakka seulement dem dem continué xeex ñi ñi fa defoon ñëw imaam jiite leen benn rakka bi des seen mbal ñoom jub ñoom jub. loolu mooy julli ràgg. loolu mooy julli ràgg. moo jural da mooy saatu xaw waaw moo tax mu ne illaa fi xaalati illaa fi lqitaal rek si xeex xaalati iltixaam fekkee ne doo nekk ci jamono iltixaam nga xamante ne kenn amatul jot nekk di xaaj nekk di def ñaari koy imaam dem julli ndax xeex bi tar na lool kon boobaa yéen jox ne nun julli nun mënee ñu julli maachèn waraakiban moo xam dañoo war moo xam dañuy dox moo xam dañuy xeex bi taw taw jaar nun mën jullee rek dañ ko jullee mooy xaalati iltixaam nag jamonoy tampon bi boobaa nag jul penku nekk wa fi naafila ci ak ci naafila fi safari si tukki al mubiixi bu dagan lil xasri ñel wàññi lil raakib ñel aji war fekkee tukki goo xamante ne tukki bu dagan wàññi la nga war may na la nga naafila si si kaw li nga war bañ a jul penku a waxum farat nag naafila la wax mu ne man salla ku julli na ila gayri xibla si jublu fu dul xibla ah naasin di aji fàtte ko falam yaalam xamu ko xatta faraga falam yaalam xamu xamu ko xatta faraga ba mu noppi ba mu pare min salaati si julleem mu ne aada day am julli gi abadan ba faw soo jullee jubluwoo jubluwoo penku fàtte ko nga dem ba sëlmal doo ko fàttaliku mooy julli boobu danga koy baam abadan wa jaalika nag fii dalik si loolu xilaaf xilaaf nag ñëw na si ñu seen waaw wakaan wakadaalika noonu in kaani nekk na jaahilin di aji réer xibla fekkee da ngaa réer xibla da ngaa ñëw si benn dëkk xamoo fii xibla nga jublu fee rek jàpp na mooy xibla jullo fee ñu ne fi nga julli woon fi nga julli woon ne du xibla fi mooy xibla lu baax da ngay baax abadan awa amida wala ba ayu tey waaw faslun faraidu salaati faratay julli arbaata achara comme ñeent la ñu sa wuus ñii la fukk ak juróom benn la ñu fukk ñeent la ñu am nañu wax fukk ñett waaye li gën a wér mooy fukk ak juróom benn la mooy li gën a mat mooy yi nga xamante ne su ñëwul si julli julli gi baaxul benn bu si manqué julli gi baaxul mooy fa tey sunna yi nag mooy yi nga xamante ne boo si bàyyi fekkee sunnat lu mu àkkal la sa si bàyyi benn da nga koy sujjóotal moom mu koy jàngee wala nga yokk si nga yokk sunna wala nga wàññi sunna da nga koy da nga koy jàngee sujjóot parce que da ngaa yokk sujjóot baax de salaam soo wàññee si yokk la salaam bu fekkee sunnatu xafiifa la nag comme ay rabadaa wala alhamdu wala ay kabaar yi si julli yi ñu kabaar am na yëpp ay sunna sunnatu xafiifa la yooyu soo si bàyyee ñett dana sujjóot doog a war moo tax mu ne ñeent la ñeent fan fukk ak ñeent la al ula bi si njëkk takbiratul ihram mooy kabar almal waaye kabar almal nag allahu akbar bi mooy kabar bi moom mooy mooy ihram bi nga yëkkat ba nga yëkkat sa loxo nag loolu nekkul kabar almal moom ngëneel la may wax bi ngay wax allahu akbar bi moom loolu mooy kabar bi li kulli musallin ñël képp kuy julli wala duha baatam nag allahu akbar mooy allahu akbar waaw takbiratul ihram mooy allahu akbar min gayri isbaa'il baa'i ci lu dul suural baa bi waaw baa bi nag wax ñu nga regal kon allahu akbar regal baa bi déedéet nga allahu akbar waaw walaay jiw du doy na gayruhaa lu dul allahu akbar benn baat boo wax allahu azza wa jalla loo mën a wax lu allahu akbar pour le kabar amal armal daal mooy allahu akbar donc leen loo wax lu allahu akbar kon ci lu amal in kaa nem nekk ne yoxsin di rexatal al arab ya arab fekkee nag koo xamante ne mën na arab ah nee na kooku lañ wax ne allah lu dul allah akbar su ko waxee baaxul loolu la wax amaa man daal ki nga xamante ne laa yox sin xaa du ko rexatal ki nga xamante ne mënul wax arab ah wala jàngu ko tubaab bi doogu tub xaman xamul dara te xii la am na ñu ne jota ko day dugg bi niyet ci si yéene duna la ajam yow li xajam am na ñooy day dugg ci yéene gi rek yéene kabar almal te bañ a fi nekk bañ fi nekk di naan di traduire allahu akbar ci langue bi du nam moo tax mu ne yan ko day dugg bi niyet ci yéene duna la ajam yow li ajam ajam mooy làkk yu arab waxii la am na ñu ne yaru xulu li dafa am li wax la ci dafa am yu wax loolu waxii la am na ñu ne yaru xulu day dugg bi lugati yi ci lugaam am na ñu ne day xool luxaam lan lay la allah akbar lan lay firi si luxaam luxa bi mu langam mu wax ko yaa ngi wutee moo tam attañeti ñaareel bi an yett mooy yéene waaw yéene gi nag day lënkaloo kabaar bi waaw waaye bi an yaqsira mu jublu fi qalbi si xolam ak duxula dugg fi salaati si julli al muayyana ci bëri bu ñu ràññee waaw da ngay yéene dugg si julli gi julli gi nag da nga koy ràññee bu fekkee tisbaar da ngay ràññee tisbaar la bu fekkee takkusaan da nga koy ràññee bu fekkee timis da nga koy ràññee waaye dooleel maa ngi fas yéene julli rek waaw maa ngi fas yéene julli tisbaar waaw jëw nag ngay ngay limi rakkaay yi soo waxee tisbaar yi nga xam tisbaar ñu ngi ko nag mu ne waaye ku da nekk nag xasduhu yéenem nga wala jubluwoom xasduhu yéenem nga mu xaay nañ di aji lënkaloog li lafdi takbir ñel baatu kabaar bi waaw yéene gi day lënkaloog kabaar bi soo yéenee rek da nga siy teg allahu akbar am nañu sax naan diggante allahu bi ak akbar bi su ngay dugal yéene gi li gën a lënkal mooy da nga yéene pare soo yéenee pare bañ fi nekk di fi di fi doxal si diggante bi daal soo yéenee rek teg allah na allahu akbar mu ne wala yazamuhu du ko du ko war nag ak taarudu gaaral fi niyat yi si yéeneem li adadi rakaat ñeel li mu rakaa yi mu ne nag waru ko nag su yéene julli gi mu si yéene waale li mu rakaa yi daanaa ko yéene julli ci saat bi nga xamante ne ñoom rakaa ak saalisatu ñetteel ba su faratay qiraatul fatihati mooy jàng fatiha al imam ci imam jàngoo ko nag du fa war imam wal fadl ak ku julli moom doon bi zaalin fi zaal mujabatin bari bu tomb ay li maanaam si fadli al munfarid mooy ku julli mooy ku weddi julli mu ne arrabiatu ñeenteel bi alqiyaamu mooy taxaw lil ihraam ñeel almal taxaw bi ngay taxaw say kabar almal say kabar say almal taxawaay googu farata la wala qiraatil fatihati ak taxaw jàng fatiha tamit waaw sooy jàng fatiha tamit taxaw ngay taxaw di ko jàng farata la alxamis yu juróomeel ba alrukoo mooy rukoo waaw wa akmaluhu gën jaa mat ji rukoo an yan xaniya mooy mu lunku bi xay si yesta yi fu mu fi yemoo zahruhu ginnaawam wa unquhu ak doqam wala ba mu yemoo zahruhu ginnaaw gi wa unquhu ak doqam ma bëgg nga lunku ba sa doq leeg sa ginnaaw gi yemoo ba nga xam tus faton tus faton ndox ndox mi day taa du du dem fee du dem côté bee du dem côté bi day taa si digg bi waaye si mu samp rukk ba tey si ñaar bëti woon bi ñu jub waaw waaye si mu samp rukk ba tey ñaar bëti woon ñu jub mu bañ ko mu bañ a ko def nii mu bañ ko def nii jub mu bañ a def nii day def jub kocc nii waaw mu ne waaye daa amul teg ka fay yi ñaar teg xam alihima ci ñaar bëti woon yi waaye nag Cheikh nee na farij asaabi'aka min indi rukuu loolu nag man maa indi ko indi madada sujuud wal fajri jumu'a moo tax mu ne walaysa zaa fi madhabi imam ay malikin loolu nag nekkul fi madhabi imam malik say rukuu doo bëgg say baaraam nga tàll nga nga tas ko si mi ngi si sakat pula waaw say sujjoot nag nga boole ko def nii nga boole baaraam nu mu ko waxee
dafa ne farrij asaabi'aka mooy na nga yëreele say baaraam ñu ne indi rukoo jamono jooy rukoo dumma na nga ko boolee la la sujuud yi say sujuud wala sujuud da nga dawal ak dumoo la ngol mooy na nga jooy soo mënee jooy waaw mu ne waaye da amu teg kaffayhi ñaari te xam alayhima si ñaari bëti woom yi mu ne wayu jaa fii dina yëreele ar rajulu góor mi faqayhi ñaari conc yow an jan bay si wala si ñaari wàll ya góor fekkee ne rukoo dina bëgg conc yi ak ñaar wàll yi mu yëre la leen waaw mu bañ mu bañ ko def nii jigéen lañ bëgg suy julli lépp mu boole ko bañ a yëre la dara ci yaramam fekkee góor nag dina bëgg suy julli mu yëre la lépp suy taxaw doo bëgg mu yëre tànk yi suy su ko tamit conc yi bañ a sës fii mu yëre bañ a sës fii ñaar wàll yi mu yëre la ko def ko nii walla yi nag ci su bu mu njattal nag ra su boppam bëgg yoon ngay du ko def nii du ko def nii sa boobu sëggal ko déet ngay du ko def nii dox li ginnaaw bi tolloo waaw moo tax ma ne walaa yu nag kisi bu mu ñettal sufu boppam ba li fi nekk yëpp doo nekk zahruhu ginnaaw ga mustawiyan di aji yemoo ak saalisatu juróom benneel ba ak sujud mooy sujud su fara tey wa sifatuhu meloo bi ni ni sujjóotee ay yu makki na mooy mu saxal jabhatahu jëwam wa anfahu ak bakkanam mel aw bi si suuf waaw ndax su jot cër yëpp a koy def da ngay sa jël day tegu sa bakkan day tegu sa ñaar loxo tegu sa ñaar bëti um tegu nga doogu tudd ko si jot mu ne moo tax mu ne ay yu makki na mooy mu saxal jabhatahu jëwam wa anfahu ak bakkanam min al ardi si suuf wa rukbatayni ak ñaari bët woom ya wa asaabi al qadamayni ak baaraamu ñaari ndëgg yi baaraamu ndëgg yi tamit day taw suuf asaabiatu juróom-ñaareel ba wa saaminatu ak juróom-ñetteel ba araf ko mooy yëkkatiku min rukuu yi bàyyi ko si rukuu yëkkatiku bàyyi ko si rukuu tamit siggi si rukuu tamit farata la wa sujud yi ni ki to ni ki noonu tamit siggi si sujud farata la mu ne fa in tarakahu nem bàyyi na ko wajabal war na ko al iaadatu baamu siggi si rukuu ak siggi si sujud soo ko bàyyee da ngay baamu jud bi baax comme nga jógee sur quoi rek daal dem direct si jot liñ ko taxaw yaakaar ba baaxu soo soo soo soo jógee si si jot tamit ah nga jug rek dem fekkoon da ngaa war a toog nga jug si si jot ah def direct te da ngaa waroon toog ah da ngay baaxu mu ne ak taasiatu juróom ñeenteel ba al julusu mooy toog li salaam yi ngir sëlmal waaw sëlmal ginnaaw ba nga taaya pare toogaay bi nga toog di taaye toogaay googu sunna la taay gi tamit sunna la waaye diggante bi nga commencé wax assalaamu ba ko ngay àgg si mii mu aleykum bi toogaay googu mooy mooy farat toogaay bu gàtt la waaw ah Malick Sow mu ne xadru ma kem li nga xamante ne yuctadaru dina yemoo yactadiru dina yemoo fii si moom wa yusalimu musalma waaw mu ne diggante bi nga xamante ne ki nga wax asalaamaaleykum ba koog way salmal toogaay googu mooy fara mu ne al aashiratu fukkeel ba su fara tey tasimatu taxlil mooy sëlmalu yeewi waaw mooy sëlmal gi nga xamante ne si ngay yeewi ko si julli gi mooy tasmatu taxlil waaye moom soo ko xamul assalaamu aleykum mooy assalaamu aleykum wala ay jur doy na gayruha lu dul assalaamu aleykum mënoo wax wa aleykum salaam mënoo wax salaamun aleykum mënoo wax aleykum salaam assalaamu aleykum ngay wax waaw walay taal imam diddi wal imam nag wal fas yi ak kuy julli moom dong gayruha lu dul assalaamu aleykum laa tasmatu taxlil moom assalaamu aleykum dong la mën doon amal maamum daal maamum nag fay sallimuha dina ko sëlmal an yamin yi ci côté ndeyjooram su may sallimu topp mu sëlmal kubaarata wajihi mu sëlmal kubaarata wajihi fa jono xaru kanamam yàq sur mu jublu biha ci sëlmal googu aradu delloo al imam ci imam waaw su may sallimu topp mu sëlmal ala yasaari ci côté càmmoñam in kaane nekk na ali ci côté càmmoñ ga ahadun kenn yàq sur mu jublu biha ci sëlmal ga arada delloo alayhi ci moom maamum ñetti suñu sëlmal lay sëlmal ginnaaw bu mu sëlmalee ci côté ndeyjooram yeneen nag sëlmal boobu da ci yéene delloo malaaka yi sëlmal yeneen loolu la ci jub su paree mu sëlmal fa jëloo xar kanamam sëlmal boobu nag li ñu julli mooy day sëlmal delloo imaam lu ci julli lu ci julli delloo imaam sëlmal su paree nag mu sëlmal ci côté càmmoñam nem kenn nekk nem kenn nekk da kenn nekkee mu sëlmal mu delloo ko sëlmal léegi sëlmal yooyu moom maamul la war fekkee imaam nag benn sëlmal dama lay sëlmal si kat sàmmoño si katam lay ñëw dégg moo tax mu ne su ma yu sali waaw mu ne wal afdalu li gën nag fii tasimati raddi si sëlmalul delloo ah sëlmal gi nga xamante ne bokkul ak sëlmal gi nga xamante ne moom ngay yewee ko si julli gi sëlmal gi nga yewee ko si julli gi mooy bi nga sëlmal si côté lay jox soo xasee ba sëlmal rek julli gi jeex na yéen sama yi nga sama nag pour delloo ay sëlmal la ñi delloo imaam sëlmal ak yi nga xam ndax ni su la xëyee su la duyoo danga war a ko fay imaam nag sëlmal bi ñuy sëlmal yow la ci yéene ak malaaka yi kon waaw yow war a ko delloo nuyoo maam ci ki nekk sa côté càmmoñ tamit dalaa nuyu war a ko delloo nuyoo moo tax mu ne sëlmal sëlmal sëlmal tasimatul rat bi sëlmalu delloo li ci gën an takun ma mu nekk bi zaw bi tasimati taxlil ci baatu sëlmalu yeweeku asalaamaaleykum waaw bi nga wax ba ngay së ba ngay yeweeku si julli sama asalaamaaleykum sooy delloo imaam sëlmal tamit ak ki nekk càmmoñ baat boobu moo gën nga wax nga delloo leen ko soo waxee benn baat tamit soo waxee salaamuna aleykum te wala nga wax aleykum salaam day baax na mais li gën mooy nga wax leen nga delloo leen même baat bi nga yeewee ko si julli bi su ma asalaamaaleykum nga delloo leen baat boobu waaw waaye nag bu fekkee da nga yeewee ko si julli bi nag mënoo wax benn baat bu si asalaamaaleykum su fekkee ay taslimatu rabbi la nag te moo delloo mënoo wax yenn baat waaye li gën mooy nga wax baat mu ne walaay charte na débul charte an yan wiye mu yéene bi salaamatil xuruji ci sërmalu génn min asalaati si julli ala axalil xawle ni ci benn ci ñaari waxi almashura bi di siwé nee nag sooy sërmalu si julli pour génn si julli gi nee na charte ni si nag nga yéene génn si julli gi waaw wa muqaabiluhu wa muqaabiluhu sëlmal gi ngay sëlmal nag ci janoog yow te mooy sa imaam bi ngay delloo sa imaam nag laa budde buntu ñàkk nag min zalika si yéene googu dégg nga kon bu fekkee bu waxee ci ni ala ahli ak xawle ni kon am na ñeneen ñoo xam ne da nga koy yéene waaw da koy yéene ci ñaan yi ñoo ko wax waaw ala ahli xawle ni mais mais lii mais mais li gën a wér nag da ngay yéene julli ci julli nga yéene génn ci julli waaw boo gën a wér mu gën a def kon booy sëlmal na nga koy yéene dañ koy yéene maa ngi fas yéene da soo waxee asalaamaaleykum salaamaaleykum boobu ngay yé- ngay sëlmal sa côté ngay jox da nga ci yéene yeewi ko ci julli xam nga loolu yeewi ci julli yéen sëlmal si def nag ah yéene tasmatu rabbi la ay sëlmal jàlloo la waaye nag sëlmal gi ngay sëlmal imaam nag nee na mënul ñàkk nga yéene ko ci nga yéene mënul ñàkk yéene nga ci yéene delloo imaam sëlmal ndax soo ko sëlmalee nii nag kenn xamul ko ko kon na nga yéene delloo imaam sëlmal wa alayhi wala ci imaam yaqsidu mu jublu
waaw yi war na si maam
wa alayhi wala ci moom yaqsidu dina jublu al imam imam bi salaamatil xuruj bi salaam yi ci sëlmalam imam sama gi muy sëlmal dina ci jublu al xuruj yu génn mi na salaati ci julli gi muy benn di ci yéene génn ci julli gi waaw ndax imam su xasee ba yéene li tax mu wax fii nag ne maamum bi sëlmal gi muy sëlmal chatun si mu yéene génn ci julli gi yeewi ko ci julli gi ndax dafa roy ci imam te dana xiraatul imaam yi xiraatul maamum yi jàng imaam mooy jàng maamum te jëm imaam fi yéenee génn si julli gi dugaa dugaale ngeen si biir waaye nag imaam nag moom mu yéene yeewe ko julli gi dafa war moo tax mu ne wa alayhi wa yaqsiru dina jublu al imaam imaam bi salaam yi si sëlmal ak alxurul génn na salaat si julli muy benn muy benn yéen wa salaam ak sëlmal ak jull ak ak nuyu wala sëlmal al malaayika ci malaayika yi muy ñaar wal muqtadina ak way roy bi ci moom imaam ñett ñetti yéene yooyu lay yéene sëlmalam sama gi muy sama si ko na jot ñetti yéene yi dafa yéene da ci yéene yéene ko ci jullit muy benn delloo malaaka yi sëlmal ak ñu roy ci moom waaw wayaqtu dina jublu nag dina yéene alfadl kuy julli moom dong asalaamu sëlmal alal malaayika ci malaaka yi dong ci julli moom dong nag sama gi muy sama si ko na joram malaaka yi dong da ci yéene delloo nuyu waaw alxaalita achar fukk benneel ba al ictidaal lu may yemoo fil fasli si tàqali ba si tàqale bayna arkaan yi diggante ponk yi waaw ictidaal boobu mooy tàqale diggante ponk yi soo jógee suru koor soo lu ko waxee bala naa tijji nga taxaw fa ak biir ba sa cër yëpp yemoo jub nga doog a tijji nga bañ a këpp këppal julli bi ak saalita achara fukk ak ñaareel bi ak tumaanina mooy dal ginnaaw ba nga ginnaaw ba nga ba nga yemale ci cër yi ba pare wax yow nga yemale ko ci dal sa toog dal ba cër yëpp dal ah ma doogu fii arkaani salaat ci ponk julli la kulli xaal yëpp tumaan ñee nag ay ci daal ci ponk julli yëpp da ko fi am soo koy da cee am soo taxawee day am soo si siggee si ko si jóg yëpp ponk yëpp ah day am tumaanina am ci ci daal moo tax mën a xiyaamiha taxawaay ya wa rukuuiha ak rukuuc ya wa sujuudiha ak sujuud ya waraxi ak yëkkatiku minha bàyyi ko ci rukuuc ak sujuud ba bay na sajjateen ak diggante ñaari sujuud yëpp rek day am ictidaal am am tuma am na wal farq ak tàqale bay naa ci diggante wa bayna al i'tidaal wal farq li tàqale nag baynaha diggante tumanina wa bayna al i'tidaal ak diggante i'tidaal diggante dal ak yemoo li leen tàqale mooy ana al i'tidaal naka yemoo fil qiyaami ci taxawaay masalan ci misaal exemple mooy intisaabul qaamati mooy jubal sa taxawaay waaw i'tidaal su ma la ko doon misaal ci taxawaay mooy sa taxawaay day jub kocc nga bañ a def lii nga def waaye dangay jub kocc sa loxo sa loxo yi wàcc def lii sa tànk yi jublu penku sa kanam nga jubale ko penku da ngay i'tidaal nga bañ a sëgg def lii mooy da ngay sëgg def lii te lépp jub waxtu ma nii na dal nag mooy lan istiq istiqraarul aadaa yi mooy saxu cëb yi waaw lii boo def mouvement boo def si julli solu koo ay wala nga sujjoot wala nga sigi si sujjoot loo def rek da nga fay taxaw ba sa cër yëpp ba sa ba sa cër yi sax waaw lu mu néew néew da nga fay def subhaana rabbil azim fekkee lu ko ala wa bihamdihi ñetti yoon yoo xamante ne day yéex aqalluha subhaana salaasa marratin ala salaati xaymaan la parce que da nga koy def bu yéex duñ ko bañ ko faafaa subhaana rabbiyal aziim wa bihamdihi subhaana rabbiyal aziim wa bihamdihi subhaana rabbiyal aziim wa bihamdihi ñetti yoon lu mu néew néew mu ne ak taalifata achara fukk ak ñetteel ba ci faratay julli tartibul adaa yi mooy toftale faratay waaw moom soo ko xamul soo xamul tartibul adaa yi an yakunu mooy mu nekk al ihraamu armal xabla qiraat bi njëkk ngay jàng waaw wala qiraatu jàng gi tamit xabla ruku nekk li njëkk ruku wa ruku ruku tamit xabla sujud njëkk sujud wa sujud xabla salaam njëkk salaam arrabiatu achara fukk ak ñeenteel bi almuwalaatu mooy méngale méngale nag mooy nga def julli gi benn yoon dañ ko tàqal ma dafay yib dina wal iqaaxu ajzaay salaati mu tabbil mboolem julli gi war kaaniha ak ponk yi yéen mu méngi baaduha lenn li baadan ci lenn waaw ñu méngante ñu ne ay tafsiqin ci ñu tàqale waaw muy fukk ak ñeenti fàtte yi nga xamante moom lañ ko waaye fukk ak ñaari mbaay yi yi nga xamante indiwu ko mooy nit parce que daa imaam moom yéen a roy maamam ci imaamam nit daal maamu imaamahu waaw imaam maam moo bëgg si julli mu yéene roy imaam fekkee da ngay roy si imaam maa ngi fas yéene julli tisbaar roy si imaam ak ban ak niyat iqtidaa il maamu imaamahu
man ni fii am na ñaari farata yu mu boole ci benn de ci benn
faslu wa sunu salaati sunnay julli su ñu waxee sunu salaati nag mooy sunatul muakkad yi sunna yi xam ne leen feddali mooy soo ko bàyyee da ngay si jot soo leen soo leen yokkee si juddu gi da ngay si jot soo leen bàyyee da ngay si jot waaw samaniyata achara fukk la ak ñeent la bàyyi